asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm comme ni ngeen ko xamee nag Equivox ak làmb du mën a ñàkk tey nag ñu seet si koo xam ne yaakaar naa fan yi hélas laaj bi dafa bëri demande bi parce que dañ may woo rek ah, xam nga gars yi dañoo nam làmb rawatina làmb simple te moom dañ ko xam ci làmb simple muy Mamadou Diakhaté ñu gën ko xam ci turu Jax maanaam fu ma jaar gaay yi naan ma Jax ndax day tëgg dimanche day tëgg dimanche ma ne leen nag léegi loolu pour mu leer sol sama dàll dem ak micro Equivox ba këram moom waxtaan ak moom moom mi nga xam ne nag mooy ndey mbil gi mu waxal boppam ndax day tëgg dimanche wala tëggul mais loolu lépp dina ci am ci biir waxtaan waaye tamit saison bi ñu ubbi ak façon bi ñu ko ubbee yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak date yi Jax maa lay la ziar. maa ngi lay fay Babacar di nuyu sa gars yi nga àndal. Mm-hmm. ak euh, ñëpp ñuy suivre Equivox TV. Mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. Jax moom damay du sax yàgg dama la naan euh, euh, lan laa euh, waaw parce que fi mu war a jëkkee yow rek fenn la mooy saison bi defe naa ne fi mu nekk nii mu ubbi moom am na mais Jax li ma bëgg nga jëkk ko wax ak sénégalais yi tey te ñëpp di ko xaar mooy Jax ndax daa teg deux millions cinq cent dimanche bii nu jëm defe naa mooy la quinze wala déet Jax Jax day confirmer loolu. waaye loolu amul confirmation loolu kay lu lu leer la. Uh-huh. CNG laa jóge nii yaa ma jëkk gis. ok déposé naa leen deux millions cinq cent mille foofu. ba pare li si am solo daal. Mhm. mooy mbër bu bëgg a bokk. Mhm. teelal ñëw. Mhm. ndax dañu wàññi nombre lutteurs yi. ok ci seen i jëf ñoom nee naa leen loolu erreur la. mais man sama wax du bari. doo teg deux millions cinq cent mille xale yi un an bëréew ñu ñëpp namm a seetaan bëre xale yi bëgg a bëre nga naan ay 64 lutteurs loolu du dëgg du yoon man samay wax du neex wax naa ko njàmme ne ko nanga ko wax président nañ dindi loolu bàyyi xale yi ñu bëre 128 lutteurs 64 64 buñ ko defee moo gën buñ ko deful tamit 64 lay doon 32 32. léger 32 lourd 32. loolu la nar a nekk su fekkee changé ñu ko. kuy bëgg a bëre si nag da ngay ñëw arène ba indi sa licence daaw indi sa 3000 yi ngay fay pour CNG pour renouveler licence bi indi sa visite médical dimanche matin teel ñu ñu enregistré la nga dugg bëri. fu ñu koy indi fële. Euh, amul renouvellement aare fële. Euh, CNG arène la ñuy renouveler. ci sa làmb jooju ca làmb ja la ñuy renouveler. terrain gaal gi jël ko dugg. loolu leer na. loolu moo ëpp solo ci bés bi. waaw loolu xaalis bi teg nañ ko CNG kon ndéem soob na yàlla dana am. dina am incha allah. waaw yàlla na am ak jàmm. mais la euh, est ce que du ñoom pa su la déggee nga ne ci côté wu maanaam ni ñu wàññi nombre d'électeurs yi nga xam ne ñoo doon participer est ce que du coronavirus bi ak yéem a respecté mesure barrière yi moo tax ñu ñu ñu ñu wàññi mbër yi. waaw Babacar dimbali ma ak mesure barrière ay mbër yuy jàppante di bëre. ba dañ fi waxati mesure barrière. ah jàkk dañ fi waxati test Covid non nañ waxante dëgg rek. lu ne dañ koy teg si cadre bi mu tegu. boo nee mesure barrière. ne da ngay def da ngay def euh, euh, distanciation. ñaari mbëri jàppante distanciation dafa amati. wax ma na waar de est-ce que waxate nañ mbëri nañ dem def def test test Covid. waaw loolu moom déggatuma luñ jël thermoflash jël seen température loolu lañ fi wax. kon léegi lu fi ne président du dindi mesure yi ëllëg yëpp ba mu set. ok car rapide yeeg loo fa gis. marché yi loo fa gis grand place yi loo fa gis bu ñu naan mesure barrière public bi la ñuy wax ñu takk seen masque. bu ñuy ñëwee si bunt bi naa teg gel bu doy ku ñëw ñu nettoyé say loxo dugg. ñu ñaan yàlla mu dem si jàmm ñu génn si jàmm. mais ay mesures barrières ci ay mbër xam na ne loolu mënul dem. mënta dem. nu muy demee parce que man dama la fi ñëwoon laajoon la fi bi ñu fi ne dañuy jéem a def huis clos bi ah état bi jàppale mbër yi pour ñu mën a tëgg lam yow boobu danga ne woon ma loolu mënul ne. wala ni ñu ko bëgg a defee mënul ne mu mel ni dafa mel ni da dem ba ci biir mu mel ni da nga amaat raison sax par rapport ak la nga xam ne moom la ñu waxoon bi ngay wax loolu foo ko tegoon yow. li taxoon nga man damay étudier lu bari tubaab daf ne gouverner c'est prévoir man du ma toog fii rek ni dof lu ma nekk sama xel mu ngi dem fu sori. ok dat yi may may tëgg nii jëloon naa ko depuis daaw. Ah. tubaab daf ne gouverner c'est prévoir. te li si kanam di di nga si xam lu leer. Mhm. man sama yëf ay étape la ay calcule la ay teg la li ma war a am déwén maa ngi koy calculer ren léelée ma teg mu mooy léeg-léeg mu baax mais samay calcul lool la mais du ma toog rek di përëx përëx rek di tënjax tënjax di dem. moo tax samay wax dee ko étudier bu baax a baax a baax. parce que man yow newoon nga ma loolu ay wax la. ay wax ay huis clos ba ñuy wax seen i wax wax naa leen ay wax la man xamoon naa ne balaa fin mars ñu ubbi ko. ndax Jax daam ku koy wax ci état bi kenn waxuma dara xam naa ni ñuy doxee ma teg samay plan ànd ak ñoom c'est tout. Mm-hmm. <laughs> daal xaaroon nga ne làmb ji moom dina ubbi waaye public bi dina ñëw. bañ ñëw. lu koy tere ñëw ñëw yow mun ëllëg tey euh, dimanche ñu war a tëgg làmb ji yow mun nga ñëw taxaw ne gars yi du ñu dugg seetaan làmb ji kon làmb ji day toj. ah doy na waar de gars yi day toj déggoo li ma la wax. Mhm. un an kenn musu fi gis ku bëreewul Sénégal pendant un an musul am. Ah, musul am la première fois trois mois lañ daan toog ne bëreew ñu dëkk bi di bëgg a toj. bu saison bi ubbee ñu mel ni dof massa un an. vraiment yow léegi nga ubbi ëllëg nga naan kenn du fa Eh, waxu picc la ndax la preuve que bi sa frère wootee Gambie teg fa un million deux cent cinquante Fallou Ndiaye oh. samedi dimanche boobu defee naa ne wala dimanche boobu Gambie ni meloon waaw oto yi jakarta yi te waa Sénégal dafa ëpp te waa non waa waa Sénégal maa fa newoon loolu mooy namba namba ji léegi nag nga leen kaay ma tëggal leen ko Dakar deux millions cinq cent mille yow it gars yi namu ñoom Cheikh Tidiane Niang ñoom ma ne yeneen la ñuy wax laa wax ragal daw fi mu nekkee léegi ngeen doyal làmb yëf ubbi gars yi nam nañ làmb de jax dina neex de bu soobee yàlla. ah mbéy ak lum moom waaw diw de soog ba. <laughs> man boobu rek doy na ma man waxuma bëre bi. <laughs> man ma rek <laughs> ak tëgg yi. te ak sa staff bi ku mel ni ñoom dut ñaan nga xam ne ñooñu ay ponkal lañ. ñoo xam làmb man ma dara ci lam dut ñaan dut ñaan maa ngi koy nuyu je profite de l'occasion pour nuyu ko. waaw kooku tamit sa diggante moom daa mel ni dëgër na de. kooku sama frère la sama doom day la. Mhm. waaw. Mhm. ba ma ko xamee ba léegi lu rafet rek. voilà kooku benn nit la. Mhm. extraordinaire. dal na ko yàlla may wér. voilà ak gudd fan. ak xéwal yu bëree bëri bëri. léegi su ma ñëwee si yow par rapport ak bés boobu ak Jax production. waaw bi nan lay demee ci ticket yi ak nu muy ak organisation bi wala na mu daan demee lay demee. wala waaw na mu daan demee rek xam nga dëkk bi neexul. am na hmm. ñu ma naan sax non loge bi def ko dix mille man leen déet nit ñëpp yow yomb ñu doole nañ ma xamee woon. Hmm. nañ ko defee noonu rek. Hmm. pour tour deux mille. ñu toog chaise ci biir mille trois mille loge cinq mille mooy tribune bi. tribune bi am ma naan sax bàyyil tribune ma leen mukk am na amateur yoo xam ne tribune rek la ñuy toog tribune toog dëgg la même bu dee ñetti nit la sax defal leen seen tribune bu ñu ñëwee gis si seen bopp làmb ji du benn benn catégorie ko moom ñëpp ci bokk. ñëpp ci bokk voilà loolu la. mais terrain bi daa mel ni miir bi dafa daanoon su ma jumul. déedéet dañ ko daaneel. cantine yi lañ jëlee. ok projet d'état bi nga xam ne président moo ko def pour affaire bus bi war a jaar foofu. ok yooyu dafa empiété woon ci chaussée bi. dafa jëloon ci trottoir bi lañ ko defoon la boo xoolee bâtiment yi aligné euh, gaal gi. Mhm. ñoo gën a reculer. ok que kii yooyu lañ dindi nag léegi gaal gi aligné ak bâtiment yi loolu mooy ligne normale bi. ok mooy poto poto poto courant yi euh, poto am euh, lampe yi ñu def ci biir. Mhm. yi nekkoon ci ginnaaw cantine yi noonu. Mhm. lampe yooyu mooy ligne normale bi. léegi nag dindi nañ cantine ya. nee na bàyyi yàmbala nga ubbeeku. bon ñoom tabaxaguñu mur ñu ngi xaar état tabaxal leen mur mais ñun bu ñuy xaar loolu duñ bëre. mais yow noo ko nar a gérer ferme fermé ah dem nga làmbu àll lu ñuy def. waaw da samp ay poto bâché. waaw waaw loolu ñuy def fii bâché ko benn côté sécurité bi nekk si ginnaaw police. Euh, yeneen sécurité nekk ci biir kenn du jàll foofu. Mhm. mu jeex boo bâché rek mu mel ni mu fermé. mu ferme ko voilà ñu ñu teg fa. sotti fa 20 mètres suuf mu nooy nepp day day limité géew bi. mbër yëpp mën na ñëw bëre. ñëpp ñëw bëre. ku ci mhm. yàlla tudd wërsëgam mu ñëw bëre beneen ñeneen ñi xaar beneen dimanche rek. mu mel ni jàkk yi tamit dañu namoon làmba parce ah. que demande bi dafa bëri. ah namm bi de am na moom. ah nam nam dañ moom am na moom ah, man la ma gis gàmbee tax waaw te lutte simple donc moo leen mën satisfaire da ngay seetaan bëre ba doyal waaw du ay jàppante nii rek daanu mu jeex non dangay ngay seetaan bëre ba doyal moo taxoon ma bëggoon ñu jox ñu cent vingt huit mbër ko defee gars yi seetaan ba doyal mais yoon du yam ci benn uh-huh. waaw tey en tant que promoteur mm-hmm. nga toogoon ñu ne huis clos mooy am nga xëy xëy ministre bi def déclaration bërki démb de wala conférence de presse moom Matar Ba. Mhm. ni loolu dañ koy dindi. Mhm. bu fekkente ne dix mille war a dugg léegi nañ xool nu huit mille di duggee wala nangam. loolu tamit bi nga ko yëgee loolu yëg. waaw kontaan rek man xamoon naan ci lañ jëm mais kontaan rek. Mhm. parce que loolu day day dëggal ne. Euh, que ñu ngi jëm euh, ñu ngi ñu ngi jëm ci loo xam ne mooy mooy mooy mooy wàññi mesures léegi du tere nag nit yi continuer jël seen matuwaay. Mm-hmm. loolu taxul na feebar feebar bi jógee wu fi de mu ngi fi. mu ngi fi voilà nit ñi dañ continuer war di jël seen matuwaay war di di jël distance comme ni nga ko waxee sànq. Mm-hmm. war di di di raxasu war di diw ay gel war di sol ay masque mm-hmm. yooyu yëpp dañuy continuer at ak moom lu mat at au moins. ba paj ba paj mi ñëw parce que vaccin bi du faj. vaccin bi fajul de. ah lu tax nga wax loolu. non vaccin c'est une prévention du faj. Mm. déedéet. yow di nga vacciné wu. <laughs> du fii de. pourquoi Azarenka bi ñu andi wóolu ma ko vaccin bi Sénégalais yi vaccin wóolu ma ko ah la gisuloo pays européen yëpp a koy dàq ba expert naan ñu koy xoolaat. waaw déggoo ko ci information. juróom-ñett xam nga juróom-ñeenti pays rejeté nañ ko fu mu nekk que dafa am ay conséquences si nit yi. ok mu am ay coagulation ak yu kenn xamul bon médecin yi xam nañ naka la. Mhm. Johnson and Johnson rek Amérique sama dëkk. yow daal kon da boo naree vacciné da dem. ba yéeg dóor sama Johnson and Johnson moom benn piqûre la amul dóoraat piqûre ñu demaat 15 jours wala 3 semaines ñaar ñëwal dolli deuxième dose man benn dose rek mu jeex. Johnson and Johnson bu soobee yàlla. <laughs> loolu de leer na. léegi su ma ñëwee ci côté date yi tamit mu mel ni ren date yi est-ce que narul indi problème ci biir promoteurs yi parce que boo xoolee saison bi toog na un an bëreewuñu. ñu amoon ay date daaw. am ñoo xam ne ci diggante bi. Mhm. taxawal ay combat am ñoo xam ne ay promoteurs yu bees lañ. est loolu narut a indi benn jeexi jaax wala jafe-jafe ci yéen en tant que promoteur ci date yi seen diggante ak CNC bi. ah si bu fekkee ne organiser xamuñu li ñuy def mu andi jeexi jaaxa bu kenn mënul régler Mm-hmm. mais daaw am na nu mu toogee woon. waaw nit ku rek day wax ak yàlla rek ay wax dëgg. Mm-hmm. na mu toogee woon daaw ba ñuy arrêté le 14 mars. Mm-hmm. xam nañ ki ci toppoon xam ki ci toppaat xam ki ci toppaat ba saison bi jeex. bu ñu ñëwee. ne Babacar yaa toppoon ci 14 mars kaay tànn. nga jël sa dimanche. jag si yaa si toppoon ci Babacar ñëwal mu jël dimanche am. keneen noonu keneen noonu ba saison bi jeex loolu mooy dëgg. nga xam ne faj nañ la yàqu woon daaw. ñi si des nag. bu dat amatul parce que làmb samedi ak dimanche la. Mhm. dégg naa keroog bi ñuy réunion sax gars yi naan noo ko dugg day dugg jël samedi ak dimanche mais ñooñu dañuy waxal seen bopp boo bëggee ñëw dugg jël samedi ak dimanche di nga xañ keneen. waaw ah, loolu dëgg mooy nga dugg jël benn dat suuraale ñeneen ñi boo jëlee benn dat génn boo ko tëggee ba pare nga wutaat bu dee am na. Mhm. ñu dalu ci ministre Matar Ba mu tëjoon ay bamar loolu mooy dëgg. Mhm. ne ko ñii ngi nii dese nañ vingt combats yoo xam ne ñeneen jël nañ ba stade ba fees na samedi dimanche mënuñoo tëgg suñu làmb teg suñu million di dem ay ajjuma ak ay mercredi ak jeudi ak i lundi nit ñi dañuy liggéey kenn seetaanul làmb samedi ak dimanche lañ soxla fii fees na ubbil ñu Ibamar an bool jël samedi yi ñu jël dimanche yëpp ñu feccal ñu feccali ko saison bi jeex ci jàmm bu matul ñu eggali ko mois d'août ñu tëj ko noppalu ñëwaat nag attaqué waat loolu mooy dëgg bi nag mais yaa ko wax kon loolu leer na ci Iba Mar Diop mais ba tey suma ma continuer par rapport ak làmb ji tey defe naa ne fan yi passé pari woon na coow. Mhm. seen diggante ak de la justice. Mhm. ci ay accusations mais am après li ñu mujj gisaat mooy woote na rawatina association bi mbëri jiite gisoon nañ fa Begaay Mbay ak Xaarim Samb. Mhm. mu jéggulu wax jooj tamit yow noo ko dundee en tant que kuy ak acteur bu yëngatu ci làmb. parce que Demba Ndiaye rek euh, kii laaj na ma ci bës wax naa ko nit bu fekkee dafa wax lu mu xamul. kilifa bu day noonu doo fi nekk di di di agrandir ay wax dangay jàpp rek xamul li mu wax nga daal di dox ci leneen parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoo doon manifester boo nee ay mbër lañ ñëpp dañuy xam ne li nga wax du taxawul xale bu ndaw sa boo koy naa non mm. xale yaa ngi si jigéen ñaa ngi si ñeneen a ngi si ñeneen a ngi si mm. ndar ba Casamance ñoo ñëpp dañu mën nekk mbër bu doon ñu ñëpp mbër lañ kon bu yebbu Macky Sall daw de am déet. waaw ndax dégg naa père Max Mbarga mu ne Fouta amul mbër. Ah, alors waaw non Fouta amul écrit. non waaw ah. est-ce que écrit est Casamance daa écrit. pour mu ñëw tëgg ah. <laughs> yóbbu fa làmb. a yóbbu làmb na am ko ko supporter rek. ok région dafa metti il faut ñu supporter ko mhm. waaw. kon daal waxam moom njuum da nga ko jàppe rek. non ko xamul di wax daal. dafa juum à la preuve ministre bi barka dem ba rek jégalu na ci. waaw loolu da am na. ministre bi demee ba wàcc bay jégalu ci ay mbër kay loolu mënoon na ñàkk sax mënoon na woo gars yi ci suuf rek wax ak ñoom bañ bañ a jégalu officiellement. parce que ah. kilifa du jégalu. kon yow àndoo ci jégalu ba mu jégalu officiellement du jégalu publiquement non. Hmm. erreur nu munti toll kilifa. Ah. nga jiite ñu yaakaar la am fu ñu la teg doo taxaw di jégalu non. ah mais Jax ku tooñ doo woote ni. maa ne doo jéggalu laa wax. buur buur la. Ah, ministre buur c'est pas pour rien ministre buur. du ndongoy Macky Sall mooy buuru Sénégal. ministre bi du buur rëyul buur. buur la buur président mooy buur rek. président Afrique buur la rek. Ah, président Afrique gisuma ko différence am ak buur. lu ko neex mu def moo yor pouvoir yëpp loolu mooy buur. Hmm. président Afrique. buur lañu. boo nee président dëgg da ngay dem Europe baa nga dem Amérique nga xam ne am na ay contre pouvoir yu wóor boo bëggee def lu jaarul yoon ñu ne la hey arrête mais fii ku wax Macky Sall arrête. nga ah. dem Mali nga dem Côte d'Ivoire ku wax euh, waa ji arrête nga dem Mali c'est pareil. Afrique ay buur la ñu am tudde leen ni ñu doon. ñoo seen pouvoir ñoo seen lépp buur du jégalu voilà. damay continuer ci affaire boobu ba tey parce que defe naa yaaka wax defe naa coow li fekk na la fi fan yi mhm. ci diggante Sonko Adji Sarr mhm. état mhm. coow li bëri coow loolu yow en tant que sénégalais citoyen noo gisee coowal aji Sarr ak Sonko rawatina fi mu mujjee bakkan yi ci wadd ak alali jàmbur yi nga xam ne yàq nañ ko ci waaw non affaire Adji Sarr ak Sonko daal mën nga mu ko jéggal ko parce que ay faits divers yooyu dafa caaxaan la quoi pour man. Hmm. ay yëfu caaxaan la. li ma gëm mooy montage la falaa si yam quoi li si des nag dugal nañ ci ay politique def si ay yeneen. Hmm. xale yi doon génn Sonko taxu leen a génn. ñu ah. doon manifester. jafe-jafe Sénégal mu leen tax a génn. dañ naan lu nekk benn étincelle moo koy taal. moo koy taal waaw loolu kese la Sonko bu yaakaaree moom moom ñi génnoon day nax boppam. ah mais oui. ah, ah yi ñi génn ñëpp Sonko ay. waay ban Sonko ëllëg. di nga xam lii dëgg raala bool la nit ñi dañu sonn tay fatigué dëkk bi metti mais man sa man damay li may am ci ay dégg-dégg mooy Sonko c'est le futur président vingt 2024. ndax mbooloo mi ma ne teguñu ko fenn teg ku ko wax ay waxu ngelaw lay wax. maa la wax lii tey. Hmm. kii falu ëllëg kenn xamu ko ku dul yàlla. ok ci boppam gëmul na day falu. moom gëmu ko waaye fu mu ko gëme parce que nit ñi am na raala bool nit ñi génn di di coow. ba ëllëg ba ñu voté dañu liggéey luy avancer Sénégal laa wax mhm. Macky Sall moom mooy Sonko doole laa wax waxoon naa ko fii ñu naan lu tax ma leen parce que échec bi mu échoué ci politique sociale moo may Sonko doole. ok mais doole boobu nga yaakaar Sonko mënu ci sukkandiku ba falu ci kaw. mën na dem ci kanam de mais falu moom yàlla yàlla ko yor gëwuma ko. gëmuloo ko déedéet kii ne président la kenn xamu ko. Mhm. mais yow tey sénégalais en tant que jàkk sénégalais ban sénégalais nga bëgg tey yow mu jiite réew mi doxal ko ban façon ban type de sénégalais yow. gisuma fi ay type bu sénégalais man daal bu élection jotee. Hmm. ñi fi ne ne pré candidat lañ. waaw ah. sénégalais nañ seet ki leen ci arrangé ñu dem votel ko. lu mu ñu andil ñu xam ne loolu la. mais Jax war nga tey benn type de sénégalais war na la. ban koo xam ne nga définir ko maanaam type bu sénégalais mun bu ma la tey xam nga yow dund nga États-Unis ma ne nga sax mën naa ne. man mii Jax. waa su ma ne la candidat man lan nga ma xamal. yow loo ma xamal. ah bariwul li ma la wan rek nga ma xamal. bien sûr Sonko li mu ñu wan rek lañ ko xamal. xamu leen lu nit dafa am li ñuy wax dimension cachée li lëndëm ci nit. dafa bari ñun ñëpp nag sans exception. bu doole ñëwee pouvoir ñëw hmm. xaalis ñëw ci ngay hmm. gis lëndëm bi génn. waaw nit soppeeku daal déggoo olof naan tànk xaalis booloo leen doo xam waa ji. moo tax nit bu si waatal kenn. tànk yorul ba téye ba fees. nga gis jikkoom changé wul. Hmm. nga door a xam ne waa jaa ngi nii. ok te ñooñu ku yàlla baaxal rek mooy mel noonu. moo mën a mel mhm. si des bu leen yàlla joxee rek. Mhm. nga gis ñu fuñ fu ñaaral jaay doole. Mhm. jaay lii écrasé ñële maa la gën maa la mën da nga tayal da nga lii. que yàlla la beral loxo rek. waaw mais waaw. président Macky Sall fu mu jógee du Fatick. lu mu amoon lu baayam amoon lu ndeyam amoon. tey jiitew ñu ñun ñëpp. yor ay milliards yu dul jeex. yor réew mi yor doole ji. bu mu tax mu écrasé ñu waay. na fàttaliku démb fàttali na yàllaa ko fi teg fàttali yàllaa ko fi jële ëllëg teg fi Babacar wala keneen mu sooraale loolu xam ne nit kese la ak lu mu munti toll waaw. parce que wax naa ko ci benn de débat nee naa gars yi tamit muy pouvoir bi comme Afrique ni ñuy jariñoo nguur dafa xaw doy waar ci lu ñuy gis ñun des fois mais tamit ñi nga xam ñuy opposé des fois tamit gars da dañ leen xeexal ba ñu jot mais bu ñu jotee tamit dañuy mel neneen loolu tamit dafa xam ne mel ne lu doy waar la de. yàlla nañu yàlla may bu ëllëgee di ko teggi. dana ca ne waaw. loolu dañ koy ñaan yàlla. parce yàlla moo ñu dàq tànnal moo xam nit. Mhm. xam li ne ci biir nit xam li laaxu ak li feeñ. Mhm. du dëgg. Mhm. yàlla nañu yàlla tànnal ki gën si ñun. jox ñu ko mu remplacer bu Macky Sall dem mu remplacer ko Sénégal mën a soqaliku. fi may jeexal ak yow mooy Yaxya Jóob Yékini dégg nañ ko fan nii ci RFM. waaw matin ñu invité ko fa laaj ko ci le ministre Ba rawatina au niveau du CNC sax. mu jàpp ne lañ fa la fa nekk ci ay nit. du jaaduwul tegut ci aw yoon dafa bëri. yu nekk fan maanaam CNC nañ maanaam ñañ fa tabb. waaw mu ne mbooloo ba dafa bëri. ah bon waaw moom bu gis boobu la amee parce que jàpp na ne loolu nag li ko indi leen la xëy na ministre bi dafay bañ ko ko mere dana loolu su amee rek day indi beneen jikko loolu noo ko gisee. mais non CNG li fa nekkoon presque moom ak équipe bële ñoo tolloo daanaka. wala su ko hmm. néewul sax. Hmm. équipe bu euh, Alioune Sarr moo ñi. Hmm. fii boo gisee ay direction ok non non non c'est pas des membres actifs non Yaxya boo waxee loolu day wax rek mais CNG mënaguloo leen jugé nag nañ waxante dëgg. non moom est-ce que du bari waaye nit bi lay wax quoi. pour non ma ne mënaguloo leen jugé ñoo xam ne kenn amu fa saleer am déet. Ah, bu ñu nekkee cinquante tamit lan lay wàññi. ci sama gis-gis man. <laughs> doo ne dafay jël xaalisu ministère beeg yooyu. waaw loolu de am na moom. ay ñoo xam ne ñi ñëw pour jàppale si làmb la. ay bénévolat quoi. ministre bi xool. ba gis ñu ko doy moom ministre bi teg leen fi hmm. boo si bokkul kay seetaanal rek man Jax ministre bi dafa ma consulter. consulter wu la. mës nga gis ma ma sànni xeer Matar Ba ndax consulter wu man nga yaakaar yow ñuy wax waxu simple ci Sénégal te man woowuñu ma ci. waaw parce que liñ ci non dama lay expliquer rek liñ de bari na moom. waaw mais am na ñu ko conseillé man sama conseil doyu ko xëy na soxlawu ko. Hmm. seet nañ ñi ko doy ñoom màng ak ñeneen ak ñeneen ñooñu conseillé nañ ko positivement. formé ne état mais du tax bokkuma ci rek damay sànni xeer man de noonu laa ko gisee. dañ leen war a ñaanal ñu réussir seen mission. équipe bu bees bi. voilà li nga xam ne moo fay gàkk-gàkk. Mm-hmm. loo si xam. Mm-hmm. nga ñëw ne leen moytu leen lii man noonu laay doxee. man su ma gisee lu yàqu boo ma laa ma ne la ah nañ bàyyi fii nañ def lii. ok jéemuma jël place kon damay contribuer pour que nit ki moytu def erreur. Mm-hmm. pour que la muy def bu réussir ñun ñëpp ko bokk. mais non non non nit ñi dañu bari waru ko woon fal moom nekkul place ministre bi du ministre hmm. Matar Ba mooy ministre. mooy président la République parce que président moo koy teg ndongoy président la donc mooy président ci sport bi. am déet loolu moom mooy laaj ñi ko neex. mu teg leen fa. bu bu doyloo xalaatu Babacar Babacar doy na ko mu laaj ko Babacar wax ko mu booleeg moom xam-xam parce que Matar Ba aussi bu leen bu kenn fàtte ne dafa xam sport nekkoon Fatick mouvement associatif n'est-ce ba xam làmb simple bu baax donc xam na lu bëri ci affaire sport dooleeg nag ñi mu laaj fal ñi muy fal parce que fal yombul am na ñeneen ñu mu bëggoon fal dëgg na ci coow la mais ñooñu mu jëw ñu nangu muy gérer di gérer ba gérer ba am équipe a ba am équipe am waaw léegi leen ñaanal yàlla ñu réussir ñaanal yàlla ah. loo ci mën a def pour comme contribution nga def ci dañu gën a avancé man la noonu laay doxee jëm kanam ah. Sénégal jëm kanam foofu la ñuy jeexale waxtaan bi kon li bëggoon a xam rek xam nañ ko ci mhm. dimanche prochain insha allah rabbi Jax teg na deux millions cinq cent fa nga xam ne mooy terrain gaal gi comme ni mu ko waxee tamit leer na 64 litres wala boog waaw 64 64 ñooy bindu maanaam fu nekk 32 32 les lourds 32 léger 32 kon tamit képp kuy mbër. teel a ñëw boo xëyee dimanche teel a ñëw. fa nga ko waxee. 3000 sa licence bu daaw nga dugg Sénégal jëm kanam. waaw si looy tàggoo et puis wax équipe bi nga xam ne. mooy Equivox TV ak seen ñëw ci làmb tamit. ah yéen ay ndaanaan ngeen yooyu wax naa ko waxaat ko yéen ay ndaanaan ngeen. yàlla na yàlla may leen doole ngeen gën a am doole gën a jóg. waaw gis nañ si seen njëlbeenu liggéey bi nee nañ cin bu naree neex. su baxee su baxee dafay xeeñ. dëgg nañ li ngeen démarré. muy démarrage bu am maanaa. donc ñu ñaan yàlla ngeen continuer noonu muy progresser ba nekk lu rëy rëy rëy. loolu la ñuy ñaan yàlla. donc làmb ji tamit ñu yàlla mu ngi ubbi si jàmm ëllëg. Mhm. yàlla na yàlla def événement boobu mu nekk événement boo xam ne jeex si jàmm. Mhm. du am benn sikki saaka parce que bu leen fàtte Sénégal dafa bari ñu bañ làmb. Hmm. ah oui boo gisee sport bi njëkk ubbi ñu bloqué làmb ubbiwul woon. dafa am lu tax te ay personnalité lañ ñu ngi ci biir nguur gi ñu ngi feneen ñu ngi feneen. Hmm. donc ëllëg dañuy mattu di xaar. Hmm. mu am benn faay fenn. ñu ne lii la ñu waxoon maa nga gis ngeen làmb gis ngeen ko. donc ñaan yàlla ñooñu na ñuy rus rek. bañ a ñuy rus. ñun ñuy avancer di dem. na solo léegi nag amateurs yi. maa leen di wax ne nañ teel ubbi guichet yi pour que mën nit ñi ñuy bañ a jajaloo foofu. loolu yëpp ci mesure barrière yi la. bien sûr ko defee ñu mën a teel a dugg. toog bañ am rang yu gudd yu seere mhm. parce que xam nañ ne incha allah amateurs yi bu soobee yàlla dañuy bari. Mhm. donc nañ ko teel ubbi. Mhm. voilà bu ko defee ñu mën a dugg discipline de manière daal. Eh, di nuyu gaa yëpp waaw jërëjëf. rafet na kon di leen jox rendez-vous rek beneen yoon ak beneen gan. Ah. ci Equivox TV du mën a ñàkk comme ni ngeen ko xamee moom lamb. du mën a ñàkk ak Babacar hmm. di bëggee ñëpp di bëggee waa Jax production yëpp rawatina suñu xarit dut ñaan ndax kooku tamit vraiment nit ku baax la te sama soppe suma xarit la hmm. maa ngi koy nuyu di nuyu Jax tamit parce que hmm. saa yu ñu bëggee wax ak moom rek ah. dina ko yombal ñu ñëw toog waxtaane lamb te itam defe naa ne loolu am na solo trop ndax olof ne na ñu bokkub teen ñoo laxo ñooy laxasoo ay góor waaw di nuyu Elas mi nga mm-hmm. xam ne moom mooy chef de production bi Elas Diouf mm-hmm. a Gomis mi nga xam ne moo nekkoon si caméra bi di ñaan Sénégal leen fi yàlla def jàmm euh, parce que tamit dafa am la ma ko fàtte woon jag non waaw loolu dama ah, mooy coon sec ah. nga ah. te defe naa ne la ci wayu Sénégal génn na àddina bëri ki démb defe am na loo war a sànni ci di ko ñaanal yàlla ñaan yàlla dafa jot mm-hmm. am na heure xam ne du heure heure ñaan yàlla la. dëgg la yàlla jéggal ko bés bépp ñaawteef bu mu bëgg a def ba mës a def. Uh-huh. jéggal suñu mbokk yëpp. ñi uh-huh. ñu jiitu. Uh-huh. ñaay seen ñaaw ñaawteef. xaaral ko aljana. loolu heure boobu heure bi heure loolu la. dëgg ndax coon kenn du wax wax ci ay ay jaar-jaaram ay yàqum wax la rek. koo xam ne ñaata année de carrière. man bi ma nekkee tout jeune. da mhm. coon sek commencé mhm. te man maa ngi bëgg a nekk mag donc xam nga mhm. daf si yàgg ba jur si doom ba doom bi ñëw nekkaat ténor tey ci ci ci ci kii bi kooku ay jaar-jaaram jaratul wax ñëpp leer na ñëpp Afrique yëpp ak monde bi donc dañ koy ñaanal yàlla loolu moo heure ñaan lañ nekk voilà yàlla mi nga xam ne moom moom njégal jéggal ko lépp dugal ko àjjana firdawsi